xale yi fii ñëw daanaka euh, daara yëpp lañ ko wax ne leen nag képp koo xam ne rek am nga xale yoo xam ne euh, wóolu nga leen ci jàngum alxuraan bi ngeen di jàngale na ñëw donc sëriñ yi fii ñëw yëpp seen taalibe dañ fiy jaabante donc ñi nga xam ne nag ñoo ngi jàngale ñoom ñoo fi indi seen ay euh, daara ay daara pour au moins ñu bokk ci tàggat bi kon beneen daara bi rek moom mooy moom maanaam daal ci kii bi ci concours bi daal benn daara euh, dañ koy diviser dañ koy dañ koy séddale ci ci ci ci daara yi nga xam ne ñoo fi ñëw séddale ko ci sëriñ si euh, séddale ko ci xale yi nga xam tamit dañuy gagné euh, ndam li. bi mooy deuxième édition bi bi mooy deuxième édition euh, daaw euh, defoon nañ ko ci daw lañ ko commencé tegoon cent mille mais ren mom tek nañ 500000 cent mille pour au moins euh, xalé yi gën ci farlu. li ma ciy yëkkati rek moy que sëriñ ci war nañ xamné ne centre bi nekku fi rek pour li nga xamné mom lañuy xalaat muy folklore. parce que ay salle de classe ñu fi nekk pour jàngal ci éducation infirmerie daf fi nekk pour fajj xalé yi jardinage mu ngi fii ci ginnaw pour au moins xalé yi jang formation en jardinage en même temps tamit dañuy sécuriser xalé yi ci xalé yi dem ci mbedd mi parce que dortoir d'urgence mu ngi fi dortoir bi euh, chaque fin de semaine dina accueillir lu mat 25 xalé yu ñu for ci mbedd bi donc centre bi dafa fi nek pour jappalé len donc demalante bobu nak lan motax ñu bolé ci li ci euh, euh ramadan bu né moy que dañuy wan serigne ci ñun ubbeeku nañ pour vraiment liggéey ak ñom ci jàppale xalé yi ci protection de l'enfant bi nga xamné mom lañuy saytu donc loolu moñu taxajuk té mom lañuy daf ni té mom lañuy continuer encore année yi di ñu ministère de l'action sociale euh, et de la famille et, et du genre ci ministère bobu lañu bok euh, mais euh, question bi dina neex tontu parce que tamit euh, loolu plaidoyer la rek euh, plaidoyer bi moy lan moy que.

donc euh, fu mu nekk nii nag ñu ngi ñaax état bu bees bii ñëw mu gën a taxaw gën a teg tànkam ci mbiru xale parce que xale tamit moom mooy doon ëllëg euh, mag boo xam ne responsable la ci biir réew donc euh, il est temps pour que état bu bees bi taxaw jóg ci mbiru xale yi pour ñu mën a vraiment toppatoo lépp luy protection de l'enfant pour que ëllëg si biir ñu mën a siggi ci àdduna bi. état bi. C'est état présence qui moy buñ invité mais quant à liguey bi mom ñun ñoo leen di jàppale ñom fu mu nekk financement yi le plus souvent ay partenaires l'Union euh, Union européenne Nations Unies euh, ay bonne volonté Ñoñu surtout ñooy ñi nga euh, vraiment financer chaque année dañuy def programme annuel buy permettre à ceux que ñu inscrire dugg ci application yi.

Euh, doo leen lekkal ndax loo ci laal rek mu feeñ ci yow donc mënoo leen euh, dund ci dund boo xam ne dund bu metti la ba pare